Génération Xalass Radio Futur Média Mboki, yi jërë ngeen jëf de leen 9h34 TRFM, vendredi 30 décembre 2022. xalaas bu mujj ci at mi ci rajo Futur Média ci atum 2022 ci la ñu nekk di am mbégte nag mbégte mu yaato yaato yaato yaato ci di ci ànd ak yéen di leen gërëm bu baax ni ngeen àndee ak ñun ci at mii at mii weesu at yi ko jël ak parce que yéene ànd ak ñun ci at yi di ñëw incha allah kontaan nañu ci seen ànd ak euh, xalaas di suñu journal fait ñu ci ànd ak euh, Aba No Stress euh, ajjuma yi ma ciy ànd ak euh, Paas Paas maa ngi lay nuyu. jaajëf Ndiaye di la nuyu bu baax a baax di la ziar. jërëjëf di sant bu wér. di la jàmm. jërëjëf di la souhaiter un anniversaire. merci beaucoup di la nga gudd fan. nga dund. yaa koo feete feete ko ay cent quatre vingt day ëpp <laughs> ay cent vingt yooyu quoi. waaw di nuyu Ndiaye auditeurs yi di nuyu internet comme ni nga ko waxee rek. Mhm. xalaas bu mujj di remercier ñëpp ci topp bi di remercier partenaires yi aussi. Mhm. waaye Ndiaye man moom ñenn rek laay remercier moom. Mhm. waaw mooy correspondant yi ni ma koy waxee. waaw di leen gërëm bu baax parce que ñoom dañuy jàpp ci liggéey bi euh, di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di leen kenn mënu koo lim mais ñëpp ñaanal leen jàmm bu baax baax. xam nga bu xalaas wëree réew. waaw. suñu ndaw yi ci réew mee tax. ak ci bitim réew. voilà leen to tong tongu naat bu wëreem réew donc yaa tax. Hmm. Happy birthday to you. 희대은 아주 특별했던 내 바이 해원대 플락 nit kii mooy kii moom mooy mooy visi wala. bala ñuy lijjanti loolu. lii Aliou ba def nii sa loxo génn ci. kii woy lii kan la. visi loxo Yacine Pouye génn ci. kii mooy visi. ah man de xam nga man way yi moom aayu ci. ah xam naa boo demee de Aliou Ba gis naa. moom moo demoon Grand Théâtre de moom mooy woy lii de yaakaar naa. xam naa rek. ah waaw. ah non jébaale kii jébaale. ah i i. jébaale kii jébaale yow ayoo dara. ah nga dëgg jébaale ak moom. dara. <laughs> xaw jërëjëf Aliou Ba Yacine Pouy merci beaucoup. Euh, gërëm waa Sénégal. Mm. fu ñu mën di nekk. des fois xamante ne jii bi ñu yëgee ne tey mooy sama jour anniversaire démb ci minuit la ñu commencé. ak man ñëw. mangi jot seeni message mangi len Santo di sante bu baax a baax kep ku ci anniversaire soo deg dégg ak soo déggul xamal ne hmm. ni nga àndee ak man tay ci sama bésu tay bi non lay ak yow yalla na yalla defal jamm jàmm kontaan nañ trop nuyu partenaire yi nga xam ne it ñoo ñu gungé ci xalaas duñu tàyyi duñu sonn duñu bayyi gërëm len bu baax a baax a baax buñ ko xel fay dem ci euh, wa Optique Vision Plus Sénégal ñom ñi nga xamantene ji seen njëriñ ci réew mi kenn dootu ko kenn dootu Optique Vision Plus Sénégal nous avons gil nit ñi lunette problème le ordonnance lunette ko a muy ben. di le li lunette yu la la problème Optic Vision Plus Sénégal Vous ci réew mi la optique Vision Plus Sénégal dalay jaay lunette du baax lunette du garanti lunette yu moderne ba pare un événement yu ñëwé dañuy nekk ci promotion jaar nañ fi ak ñun coupe de coupe du monde ah, coupe d'Afrique période mm-hmm. bi optique Vision Plus Sénégal dañu nekk ci promotion fête fin d'année. Mm-hmm. ak ay réduction yu dem ba ci la boutique Optique Vision Plus Sénégal yépp su mo né yépp moy showroom bi nekk Dakar. moy mm-hmm. boutique bi nekk Kër Mbay Fall bi nekk euh, Mbour bi nekk Touba bi nekk Louga bi nekk Saint-Louis. kenn du ñom ñom wa optique Vision Plus Sénégal c'est numéro téléphone 33 821 54 57 le 77 479 63 38 ñom wa Optic Vision Plus Sénégal partenaire Benen, bu Khalas, xalaas yàgg mon établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère ñom ñi ci indi gamu vite fait bi di len nuyu di len ziar Moustapha Fall Modutin ak mbooleem ñi ñu andal ci liguey bi contane nañu torop ci seen ànd ak xalaas waa réew mi nañu ci gam yu bax yi ngeen len di andil muy frotté vite fait muy cuuraay vite fait muy pompe vite fait muy euh, briquet vite fait allume gaz vite fait pâte dentifrice vite fait crème épilatoire wala crème main vite fait lépp ñoom ñoo ko fi indi ngir bëgg waa réew mi noppalu noppal nañu waa réew mi ñoom établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère seen numéro téléphone 77 555 11 11 77 806 15 19 76 577 06 63 nous des ba léegi ci partenaire yi ñuy qui ci avec ak partenaire Bidi bijouterie La Roton ñu bari nee nañu faire ren li ko tax a bijouterie La Roton ak yimu andil gagne gaañi bijou ay arrivage yu bestac ay or yu will pëng or 18 carats wala 21 carats ci bijouterie La Roton ngeen mën a qualité bu baax bu pur bi euh, ay bijoux en diamant bijouterie La Rotonde l'a ko gisee ay marque yu yéme marque Pomi Kawora Paola ak yenen yo xamné ne nañu ko bu ngeen fa démé fofé ci bijouterie La Rotonde seen xol dina sedd mhm. mi ngi euh, rue Amadou Assane doy immeuble La Rotonde ci rez-de-chaussée bi foofu la numéro téléphone bi di 33 842 65 95 33 848 96 96 70 639 60 60 dembo amna kilifa guma gu bax ndaysan sama mag ju bax ju jigéen nee na mhm. bijouterie La Rotonde lo ci wax rek dess na. Hmm. c'est-à-dire sénégalais dañ xam d'abord là muy muy muy ñëw ci xalas lolu nak likoy maye moy liggéey bu baax qualité bu baax. Hmm. partenaire bi ñuy jéxalé ci xalas moy Wave. Wave wa Wave nga xamné bi mu yegsee li ñuy wax moy sa xaalis yaay borom. Wave ma jéxna da nga mo ma Wave la. Wave ma Wave mo nga bëgg ma Wave la wa wa dina la Wave mais Wave ci fête bi ci ci fin d'année bi. Hmm. dafa message bu mu andil client yi. parce que nee na ci at bu bees bii di 2023 Wave mi ngi souhaité ay clients ay agent ak ay partenaire at bu fess del ak ay mbégte ak xéewal yu yaatu mu ne ginnaaw loolu Wave mi ngi di jox ay pexe ngir ngeen ar sen compte ci def lu bon yi bu ngeen euh, nee na na ba ngeen mën dundu ay feet yu dal mm-hmm. ci feet yi ay defkatu ñaawteef dañu ci profito ngir nax leen ci loolu Wave mi ngi leen di jox ay pexe ngir ngeen mën muccu ci yooyu naxate mu ne bu len jox kenn sen code secret sen code secret yéen ko mom mm-hmm. Wave mi ngi di bàyyi loxel ci yenn xeetu njublang yi leen di woo naan leen ñun le service clientèle bu wéef di code secret mu ne bu leen jox kenn seen code secret. Hmm. ak ku mu di doon service client bu wéef du leen mësa ci numéro bu bokkut 200 600 200 600 Té duñ leen mësa ay information rawate na code secret ñoo ngi leen di moytuloo euh, code secret yu yomb

Euh, dellu gërëmaat waa Sénégal ah. dellu gërëmaat waa Sénégal ci ci ci ci ci seen ànd ak xalaas. nee na Ndiaye. sa bis bii. Hmm. yow kese moom moo ko def Ndiaye ba da xam nga ni groupe bi dafa bëri ñoo xam ne le 30 décembre mooy seen anniversaire. Matar Samb ci la bokk. Matar Samb. waaw loolu moom leer na ma. Maggi bu ñuul. Maggi bu ñuul. Maggi bu ñuul xam nga TFM daa am bu xees am Maggi bu ñuul Maggi bambara ak Maggi bu ñuul. réeral nga ma de. <laughs> magi ba ca comptabilité. ah madame bokk waaw ah, bokkut ak magi ah magi Coulibaly mooy magi bu xees. waaw lu ne yaa koy wax. ba boo bëggee mu leer rek magi bu xees ak magi bu ñuul wala magi digital ak magi comptabilité. waaw magi comptabilité mooy madame Wade moom la anniversaire am nekk tey. waaw ah, c'est vrai ñu ngi koy ñaanal aussi anniversaire bu neex. ak man. déedéet yow bokk ci <laughs> fu ñuy tàmbalee démb am na ci loo nekkoon ci xalaas. waaw moom la ñu eggali Ndiaye. mooy waa ji nga xam ne. Mhm. Euh, nee na dafa gis benn xale bu jigéen. Mhm. jikkoy xale bu jigéen bi neex ko. waaw du fa nekk di laamisoo liwtoo bu yàgg da koy jël soxna. waaw mais ci biir waxtaan wi xale bu jigéen bi xamal na ko ne. Euh, ñu baal ma ci kàddu gi nekkuma sama ndaw. mu ne ko amul problème. waaw sa jikkoo ma doy. waaw nee ñu jël ko mu jaar fa mu war a jaar. waaw ba ñu commencé di sëy. waaw xale bu jigéen bi soppi jikko. ah waaw loolu da ko wutal ndaw. ko wutal ndaw. waaye. est-ce qu'on parle du même Daoula <laughs> yow Ndiaye kon musu yëg ni Sénégal dañuy dañuy defar ndaw. déedéet ndaw jigen fi Sénégal fi. defar. trafic. <laughs> Non non non non non non non non fast fast. de lox lu réel lu lu réaliste quand même nak. Ndiaye. Musuma hmm. wax lu réel limu wax ni c'est des faits des faits mën na la wax sax tour ku nekk ci ben hôpital bu siiw ko xamne lool rek kay liggéeyam bul wax bul wax bul wax moo tax man la lol dafa dafa am bul yàq business su jàmbur comprendre nga loolu parce que yàq moo gën dafa am saa gis day day fay ko lu cher mais bu ko def du ko defee ci hôpital ba day génn hôpital ba yóbbu la ci benn clinique clinique bi sa sorewul côté yu ñu nekk nii ñu koy defaree seen matière lay nah, utiliser non est ce que da lay da lay rek day ñëwaat ak yooyu rek pour après allah waaw baax na baax na baxna na waji nag waa bi bi ko ndaw si waxee loolu. Mhm. moom waa pour suturaal ndaw si parce que ndaw si seen famille dañu gëm yoyu munu mhm. ko léegi man dina sutura ba nga xamanteni de nga am ndaw bàjjan yek ñep yaakaar ndaw si da am ndaw fekk na fessul deng mhm. ba lolou wesso nak fa la ciol tàmbalee ci formation bu ndaw si bëggoon def après nak jikko ba mu fogon ci ndaw sax jikko génn. ba sëy bi fi mu nekk nii tas na. ah sëy ba tas na. eh tas na. Ah. ñu déglu waa ji mu continuer déglu. léegi nag ma ne ko yooyu du problème bu dee loolu lekkal su ma la jëlee yooyu yëpp dinaa ko léegi ma jël ko bi ma ko jëlee man ak moom waxtaan ba dégg ma créé samay bagage xam nga ko jëlee ba jënam daal di ñëw ak yaayam yaakaar daa am ndaw man moom ak yàlla ba fi may waxee ak ak bàjjenam ñëw ñëpp pour ci ndaw laa ko jëlee ba fi kenn yëgu ku dul yow te li li problème bi demee nii sax jaaxal moo tax ma expliqué la léegi ñu kii noonu biñ dawalee noonu mu ne moom dafa war a def formation quoi formation moom da doon jàngale après dafa dafa dañ ko dàq wax léegi mu ne dafay def formation mooy formation bi état bi dafa ah, jàngale ma ne ko ñaata la mu ne ma sept a mille ma ne ko sept a mille no waaw fekk boobu après fekk jël naa ko ba pare ba mu jël ci mu jël si ëmb après ñu dawal un mois deux la problème la ma daan mu ne ma non damay lii ma ne ko ko ñaata lay diire mu ne ma lii lay diire quoi formation bi quatre ans cinq ans ma ne ko soxna si est doo doo bàyyi boobu noonu nga def bu gën a daal wala nga dem sax def pharmacie mu daal ne ma du ma def loolu waaw affaire yooyu waxoo ma wala léegi après si lañ expliqué ma daan ne ko bañu ma la kaa defal mais dama xam ne nii formation boobu nga may wax sept cent cinq sept cent sept cent millions su ma la ko defee suñ su ma la inscrire loo ba kii bi tijjee école bi soo xasee ba inscrire te instant yaa ngi am en état ma ne ko jigéen bu wérul nag dina dem ba benn moment dootul mën a jàngi day toog rek te boobu doo doo dem di récupérer sa xaalis nga koy perte ma ne ko kon da ngay bàyyi lañ bañ ba nga mucc ci jàmm ñu xool ñu ñu réglé mu ne ma waaw waxoo ma woon lii foofu la problème yi démarré mu ne waxoo ma woon lii nangam sàngam wax ay waxam affaire bi nag jëlee ma kaw indil ma jikko boo xam ne musuma ko xam ci moom xam nga yaayam faral ba fi may wax ak gaw wala ke ma fi ni ma soxlaatuma sa dërëm mel na kuñ xabtal daal ni ma soxlaatuma sa dërëm mais wax façon wax bu ne woo sama ma ko ba ñaan ci la ma waxee may ma sama baat fase ma ñaan na ma baat deux fois première fois bi ñi la woon dañuy waaj tabaski mu ñaan ma ne ko waaw léegi baal ba bañ baal bañ tabaski ba pare instant bi am problème ñu waxtaan kilifa yi mu ne ma fu ma ko ñu waxtaan waxtaan ba ba ñu waxtaan ba jéggoo ci kilifa yi noonu ba ñu àndaat bi tabaski passé ba ñu jënnaat tabaski la ma may ma sama ma ne ko booye ñu ma ñaanati baat fekk yàlla mayu sa bopp mu ne ma du ma ko def affaire yooyu noonu ma wax naa bay bëgg a dee façon nit bu ne imaam jox naa ko pour mu wax ak moom mu ne ko bu gëttuma tam instant bi fi may waxee yow mi ngi waaj am doom nii nii nii dama duggoon si moom pour yërmande parce que yi ma expliqué si jaar jaaram ma ne kii nañ ànd te dama dem ba affaire man ndimbal googu noonu man sama bopp man moo tourné si sama kaw te lan moo ko waral mais daal problème bi dafa dem ba bëgg ma dépassé te koo xam ne da ngeen àndoon xam nga dara xewul mu nekk si jàmm ak salaama mais dafa xëy rek man affaire bi dafa mënu ma sax expliqué si ay problème yoo xamante ni la jamono ji ma ne baal ba yàlla may la sa bopp ëmb kenn du si maye baat mu ne ma fase ma laajte naa ko lislaam maa buggoon buggatuma ma ne ko fasewuma la baal ba nga mucc mujj gi ma ma toog ma xalaataan ma ne ma wooyaan ko kat ah léegi daal fas dama koy fase naa ko parce que problème bi mooy bugguma ëllëg yeneen di ci xewaat quoi parce que dem na ba ci wax waxi xaroog yooyu daal après affaire bi daal ah, ma mujj ko tamit fase ci biir sëy ëmb noonu léegi nag mu ne ma ordre sa mu bloqué woon ma ma ma li koy wax soo soxla loo soxla nga wax ma ko ma defal mu ne ma soxla sa dërëm waaw dara instant bii waaw man si sama bopp soxla ma sa dara dama laa suur waaw doyal na daal dem wala ka ma xalaas nee na Njaay kër ga jaxasoo na de kër ga tas na mais Njaay dañ ciy jàngee ñaari mbir mhm. benn bi mooy nit jikkoom jikkoom munoo koo xam ci un mois deux mois comprendre nga ñun góor ñi bu ñuy dugg ci ay sëy nii nañ bàyyee di diggee ñu mënula dam lay wax non waxuma ci waxuma ci kii nii de mm, mais dafa bari njaay da ngay ñëw bëgg a takk jigéen mu naan la non man sama jàng nangam nga koy jox assurance yoo xam te ni yow leer na ni yow li mënuloo ko mm. bu dee ba découvrir ko danay jàppee koo xam ne du wax ko tu dëgg mm. waaw njaay yow kii amul ndaw mën na am du bonam moo tax ndawam dem hmm. mais bàyyi ko ci noonu bu fekkee mën nga ànd ak moom ci noonu nga ànd ak moom ci noonu mais le problème mooy waa lii mu def nii après moom mooy répercuté ci moom ndax dafay jàpp ni dañ koo trahir hmm. euh, beneen bi ci topp déjà wax nga lu am solo mais beneen bi ci topp mooy ci biir waxam nee na dafa dem ba mu yàgg xale bu jigéen bi changé jikko hmm. mais jàppal lii ma lay wax jikkoy jigéen ci sëy bu changé rek dañ koo changé d'accord naa de. jigéen. Hmm. buy sëy buñ koy muur yéene ji mu amoon. mooy toog ci sëy bi ba dee fa. Hmm. bu demee ba ci biir mu changé. Hmm. nañ xool la ko changé. lu ko jëkkëram def la. lu ko mbokki jëkkëram def la. lu ko jëkkëram wax la. lu ko mbokki jëkkëram wax la. nañu xool loolu mais jikkoy jigéen bu changé rek dañu ko changé benn deuxièmement mooy ni ma ko déggee mu wax nii hmm. jikko yi changé wu rek ci benn côté autant ni mu changé ci ku jigéen ki autant ni mu changé ci moom hmm. bu fekkoonte ne la mu ko diggoon def na ko hmm. ñàkk ndaw xale bu jigéen bi du dugg sa nopp déggoo mu ne wax ko kenn man dong la ko wax ah déjà jigéen ñi xale yu jigéen ñi nañuy góor góorlu nañuy góor góorlu dëgg la yore ndaw dugg ci say taxul say gàtt taxul say yàgg taxul say gudd mhm. mais góor bu la wax ne la dinaa la ko muñal muñ nga du yàgg gis nga gis nga jamono moo toll foo xamante ne ji dem di sëy yóbbaale sa lépp mhm. signe de respect la ci kii sëy waaw buñ la waroon a respecter dix danañ la respecter vingt mhm. pour autant nag jigéen ñàkk ko taxul mu bon ki lay takk sax. c'est comme c'est comme nit dem kaso taxul mu dëng. waaw àdduna moo ni demee. waaw mais nañuy muñalante tey waxtaanante. waa Ndiaye. Mhm. en parlant de ndaw googu ngay wax. waaw ñun góor ñu xaa amuñu ndaw ñun. c'est que yow nag da ngay génn. non non damay damay laaj en fait damay laaj parce que xamul tax ñun dañuy accentuer xam nga xam nga ba ba ne jigéen bi amul ndaw maanaam mooy def na lu mu warul def. Mhm. te pourtant ñun ñoo fi dàq. <laughs> yéen yéen non maa ñun góor ñi en général wax waxuma ñëpp nag quoi. mais loo ci mënti déggee laa Ndiaye mooy hmm. nañuy déggee lu ñu mën nañuy dugg ci lu ñu mën di yan lu ñu attan. Hmm. non xam naa fi nga bëgg a jëm loolu mënul nekk. ba dafa mënul nekk maanaam li ñuy reproché jigéen ñi lu tax duñ ko reproché góor ñi. waaw mënul nekk. nit nit dong la. waaw déet mais góor gu xas am jabar bëgg ñaareel. waaw mais xam nga kooku bu dee ndawee tax mu sëy du ah, naa ci côté boobu. mais loolu moom nekk te mënuñu ko yamale te buñ ko yamale. wax ji mooy xale yu jigéen sàmm seen bopp. góor ñi nañuy déggee luñ mën te sutura sëy ñu koy garder ci kër yi. am na lu ci des loo wax sànq. jigéen bu ñu muur sëy ba dee la bëgg. est-ce que am na ñoo xam fi mu nekk nii heure ménage dong lañ bëgg a dégg. Astumben xam nga ko. waaw Astumben. waaw Derneville. borom à voilà benn jour dañ doon waxtaan mu ne ma sëy moo demee noonu. ñi duggul dañuy bëgg dugg ñi dugg dañuy bëgg a génn. non daam ñoo xam dañoo bëgg position position boo ca féete rek muñal. boo dégg bu duggee muñal boo génnee muñal. mais ñi duggagul dañuy bëgg a dugg ñi dugg ñoo ngi bëgg a génn bon ñenn ñi nag du généralement parce que am na ñoo xamante ne ji fi ne li ñuy wax mooy yeex naa dugg ci sëy bi waaw noonu la amee ñu naan yeex naa génn ci sëy bi <laughs> daal ñoo xam ne dañuy bëgg dugg ci sëy uniquement pour maanaam dégg heure ménage un mois après ñu divorcé moom seen bopp. non ba tey mais dama ne wax léegi yow Ndiaye man man. ñu dem allo président du jàll. waaw dugg ci élément bi Ndiaye. dafa am lu ma naqadi lu xew léegi. gis nga sëyu jigéen ñi lu koy tas lu bari. Hmm. dafa am ñoo xam te ne am métier bu bees. xaw ma ay coach lañu xaw ma lan lañu. amuñu jabar amuñu gel amuñu waxaale mais ñoom ñoo toog ci live bi femmes marie yi ñëw dugg seen ay laaw ñoom ñoom di conseil ñu war def seen ay sëy ñoom ay góor yu ne léng cest à toog bitim réew comment nga naan la sa goro nangam sa sa njëkkee nangam sa papa yi jëkkër nangam sa rakku jëkkër nangam yow nga toj kër gi moom mu toog bitim réew <laughs> xaw ma kot su kot su kot su mbaxana wala kot su majoojo wala kot su doo doo xam fuñ koy jàngee loolu. yedduma kiy woote ak mbon ka koy fekki laay yedd ah tamit nag jigéen ñi na nga xam ne tamit seen sëy yi ñoom ñoo ko mën a seere seen bopp jàllale élément bi ngir yàlla si jàll de waa ji dafa am jabar moom tam ñam ñetti doom mhm. dégg ñu xëy un jour xam daal lu mu def bañ jàpp ko tëj ko prison dóor ko cinq waaw jabar ñëw ñaan ko baat ca kaso ba i may na ko baat jabar ji dem na ak doom yi waa ji boobu léegi mënul gis doom yi ay doom yi lay war fi mu nekk nii man daal benn soxna laa fi takkoon bu tudd Astu Jóob léegi bi ma fekk see mbooro bënnoo mbooro géej ci laa nu dund ba ma takk ko bi ma ko fi takkee nag ñu am fi ñetti doom yu jigéen ñu dund fi ba yàlla teg ma problème ma am problème mu cinq léegi bi ma ko amee ma dund ci biir cinq yooyu nag ñu ngi gisee ndax mi ngi may seet ba bi may am quatre ans bi ma amee quatre ans nag ci dernière bi ci la disparaître dem yoonam yóbbaale ma ñaari doom ya kenn ka sama yaay laa ko tuddee maam jaara sàmb kenn ka sama jigéen laa ko tudde muy Bakary Samb ki ma fi bàyyi sama rakk laa ko tudde muy Faat Samb moom la fi bàyyi moom mi mu fi bàyyi nag heure bu ko bëggee gis moom dina ko gis parce que xam na fi mu ko bàyyi mais man mi nga xamante ne damaa bàyyi yóbbu sama ñaari doom ci xaw ma fu mu ne ci àddina mënuma gis sama ñaari doom depuis deux mille dix huit ba léegi deux mille dix ba léegi mënuma koo teg bët mënuma teg bët samay doom dégguma ci lu ñu ne léegi nag man ma koy ñaan ak di leen ñaan ngeen jàpp fu mu mënti ne bu ko déggee bu ko xamee man na ma informer rek sama ñaari doom ba ma xam fu nu ne xam ci lu ñu ne parce que xawma doom yi ci lu ñu ne xaw ma ñu ngi ci lu ne xaw ma ñu ngi ci lu naqari xaw ma dee nañu xaw ma ñu ngi dund te vraiment jur sa ñaari doom su déggee lii na ma dimbali ngir yàlla même bu ma moom sax garaawul bu ñu gisee mais bu ma nee vocal ni ma say doom ñu nga place tel soo fa demee di nga gis say doom sax man bu boobaa dinaa sacrifié wu pour fexe ba gis samay doom effort bu ne nag def naa pour bëgg xam fu mu ne ba bii moo fi sos ma ne naa ko def dégg naa ko fi Mauritanie dégg naa sax ñu ni dem na fi Espagne dégg naa ko fi Maroc dégg naa ko fi Kaolack mais fépp fu ma ko fi dégg it gëstu ba jifir gëstu bu moom bu fa sama gëstu àggee duma ci dégg dara lu ma problème boobu mooy problème mu la woon cinq ans yi ci biir prison bi nag bi may am quatre ans yi ci biir prison bi la ma fa fekk ñaan ma fa baat bi ma fa fekkee ñaan ma fa baat nag may naa ko fa baat léegi man problème mu sëy sax waxatuma ci moom man kay samay doom laa bëgg ma xam ci li ñu ne rek. Xalaas. Mangok xam naa damay joxe numéro bi 77 150 17 17. ñu jokkoo foofu pour xalaas Ndiaye on se donne rendez-vous 2023 le 23 janvier incha allah ah le premier janvier. Hmm. fële ca musée de civilisation noire ñu grand bal. dellu di baalu ñëpp àq. maa la invité dégg di bal ñëpp àq incha allah. d' accord invité naa la grand bal d'accord di baal ñëpp fu ñu ci mës a wax. Hmm. lu neexul nit ak kuñ ko mën a wax. muy ci xalaas bi. Mm. muy ci revue de presse bi muy ci journal bi muy ci rajo bi baalu naa ñëpp wax maa ngi baal ñëpp wax di ñaan yàlla sunu borom mu defal ñu at. mi ñu jëm. atum jàmm salaam xéewal. amiin yaa rabbi tawféex defal ñu sutura ak wér. amiin yaa rabbi yal nañu yàlla sàmm. jàmm ak jàmm. amiin baal ci nekk jàmm jërëjëf